bi fa toogee ba ay 22 heures di ñibbi si ñëw naa ba yegg sama koñ Liberté 6 extension bii laa dëkk comme te maa ngi woon en communication bëgguma woon yéeg pour déranger ñi ma bokkal appartement ma ne xaaral taxaw ci suuf communiquer ba pare su ma pare ma yéeg parce que comme te xaw na guddi waruma déranger kenn fi ñu taxawee di communiquer di tàggatoo ci la ñaari scooter il y a quatre nervis. Je pèse bien mes mots il faut retenir ça. Quatre nervis. ñaar ñi ñooy dawal ak kenn ku ñu supporté ñi ñu supporté ñoo wàcc tellement que nu ñu taxawee mayu ñu ma sax euh, échappatoire ndax dañ dañoo taxaw sës ma ci biir ba awma fu mu mën a daw mënu ma sax daw au premier vue dama foogoon ne ay agresseur lañ mais bu ñu wàccee ba kenn téye sama tubay comme policiers yi nu ñuy poñee tubay par derrière rek kenn ki poñe ma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

ne ko ngir yàlla wax eh, récupéral sama téléphone yi ñu téye ne ko ngir yàlla bu leen ma bàyyi ci loxo ñi parce que mun nañ maa fàtt gendarme bi fi la joxe injonction kenn ci nervi yi ne leen bu leen ko dóor bàyyi leen bu ñu yegg fële ba pare récupérer sama téléphone yi gendarme yi ñoo ko mujjee récupérer ci ci yoon bi ñu yegg si ci seen QG bi nga xamante ne c'est quelques dizaines de mètres ak fuñ ñu ma intercepté

nervi nous avons ba légui changé nañu version par rapport ak une version initiale waaye changé wuñu sen présentation ils ont maintenu leur présentation en disant que nous sommes des éléments du ministre de la jeunesse ba pare ne chef Sow ndax xamoo ki ki moy Pape Abdoulaye Touré ci ñuy wax ndaw yi ñu génn di taal réew mi di attaquer nit ñi ci la bokk te pourtant sen version initiale mooy dañ maa jàpp may manifester mais bu ñu ñëwee ba ci chef Sow avons changé version Mais qui moo nekk ci réseaux sociaux di à ce que ñu taal yàq réew ma démentir ko ci ne ñu après beneen nervi ne fekk nañ ko sax muy téléphone di jox ay instruction naan kaay leen attaqué fii ñëw leen kenn ak ne ko amul de récupérer le téléphone nga jox ma ko parce que m'a temps sax couper sama appel suñu appel di nga gis kan laa doon waxal mu jox ma mu ubbil ko téléphone mu dugg xool dernier appel mu xam ne loolu amut ma yemuma ci appel bi kese mu dugal ko sama page Facebook ci sama téléphone ma ne ko xoolal mu xool ma dugal ko sama WhatsApp dévrier ko dugal ko ci biir ne ko groupe yaa ngi nii bu la neex dugal nga xool ndax est-ce que bokk naa ci groupe bu ñuy taalee mu dugg xool ñaari téléphone nag laa yoroon doyen Maodo Mbodj ngi nii du bàyyi ma fenn parce que benn téléphone bi. vu que j'étais le chargé de tout ce qui est communication digitale de la plateforme F24 nous avons ñoo un téléphone pour li pour yombalal ma liggéey bi benen téléphone bi nekk sama téléphone privé mais sama téléphone privé bi dañoo gis euh, euh, bu ko euh, chef Sow de dafa gis image Sonko image président Ousmane Sonko la gis ci ci ci sama fond d'écran de verrouillage rek discussion yi jeex na de amatul yow lu tax nga def yow lu tax nga def Ousmane Sonko mi fond d'écran comme te man euh, apprenti juriste la te jàpp naa ni gendarme yi xëy na ay nitu yoon lañu ma ne ko ah téléphone bi maa ko moom su ma neexee def ko ma neex fond d'écran ba ci Michael Jackson sax su ma neexoon ma def ko fond d'écran Michael Jackson boobu laataa kàddu gi di daanu ci lañ ma ci la ma dugal coup boo xamante ne duma ko fàtte nit moom chef Sow ki jiite woon ma yi nekkoon foofu ba pare. joxe ordre ay élément am ne leen yóbbul ma ko fële ci côté mur bi dinañu wax kat moo ko yónni ñu jagat-jagadee ma gendarme yi rek ci lim matoon nañ une une vingtaine wala une trentaine de gendarme nervi yi ma jàpp initialement laataa ñuy yegg ci QG bi romb nañ ay yeneen check point bi yu ñëw dollee ko ci lim bi maanaam ñu ñu sekkoon ñëpp ci gendarme ak ay nervi ci xayma matoon nañ cinquante personnes

kan moo la yónni tel tel tel tel kan moo la yónni tel tel tel tel duma ma duma yu méttee métti bu ma juddoo sama ndey ak sama baay ba léegi mosumaa gis duma yu mel noonu ma la ma dund ko man de mais mosumaa gis kuñ ko duma wee jël seen ay tonfa mooy seen bâton yooyu nga xamante ne dafa dëgër amuñu sens interdit ci sama yaram kanam bopp nopp bët fépp lañ doon dóor dama baare baare ba looloo indi sama fracture bii ci sama loxo bi ndax ay barré pour bañ coups pour wàññi effet coups yi au niveau de mon de mon visage et sur ma tête ñuy door di door dem naa ba benn moment su ma so bu ma sonnee pour ma mën a jëlaat tuuti air pour mën a nooy nooyiwaat tuuti ci vidéo ñu ko seetaan mën nañ ko confirmer maa ngi doon naan chef sow ndax mën naa wax chef sow ma wax parce que jàpp naa ne su ma waxee loolu chef bi dina arrêté loo élément bi ma nekk di dóor pour mën maa déglu léegi saa su ma waxee loolu day arrêté day wax gars yi arrêté léegi arrêté boobu temps boobu ñuy arrêté muy ay quelques secondes dama ciy profité waat xaw a jëlaale air tuuti. ma ne ko ndax dëgg nga bëgg dégg wala dangaa bëgg ma fen la mu ne ma wax ma dëgg bi man ko dëgg bi mooy kenn yónniwu ma kenn yónniwu ma jox naa la sama téléphone vérifié nga kenn yoon yónniwu ma je fais que librement amee préoccupation ñu jàppam mu ne acawaat. gars yi commencé dóor man daal dóor nañ ma ba benn moment di fàttali ne vingt trois heures maa ngi ci ay loxo maa ngi ci seen loxo déjà ba presque 2 heures moins te amul benn moment bu ma toog noppalu amut 23 heures ba 2 heures mois 2 heures du matin ñu may torturer après ci laa jékki say parce que dañoo bëri wër ma nervi yeeg gendarme yi yëpp. ñoo ànd def coalition doon ma torturer donc ñi ñi wax ni Pape Abdoulaye Touré ay nerveux ko torturer ils n'ont pas amul euh, wax nañ dëgg ñi wax ni tamit Pape Abdoulaye Touré ay gendarme ñoo ko torturer wax nañu dëgg ndaxte ñaari identité yi ñoo def coalition doon ma torturer buñ may door flash yaa ngi tàkk gisatuma dara parce que projecteur yi sama bët bi man daal maa ngi baare rek man daal maa jékki saay gis xaaju birig buñ ma sànni mu jóge ci ginnaaw gendarme yi ñëw ci man moo waral sama bopp bi xaroon bi ñu ma dóoree birig bi ma ma ma tombé dans l'inconscience ma xëm li ma li ci gën a metti mooy bu ma xamee taxul ñu arrêté taxul ñu tiit taxul ñu raf dañu profité ci xëm boobu ma xëm ñu dóor ma ay monote mooy monote yooyu ngeen di gis ci image yi seere monote te période bu ñu may monote fekk na damm naa dans damu damm wi lañ boole feere ko bu ma par derrière wuñ ma devant mu protéger wu par derrière lañ ma am accès total ci sama tête ci sama kanam ci sama bopp ak ci sama ma au sol ñoom seen ay terme la parce que dégg naa leen wax ko au sol ma jaaxaan loowee may muy dama fekk benn gendarme kenn ci ñoom te jël seen ram jésu diis yooyu yi fii la ma ko teg ci baat ci diggante dënn baat bi pour neutraliser sama bopp j'étais au ma gis ñaari gendarme ku nekk jàpp sa ñaari loxo bu mu dëgër sama ñaari tànk yi ñeneen ñi wër ñu jëloon tànkam teg ko ci sama baat bi dafa jël gutu dii litres def ci ndox def ci suuf suuf boobu ngeen doon gis ci sama yaram ci image yi mélange boobu la parce que xam naa bëgg nañ ma yee xam nañ ne xam naa bëgg nañ ma yee ñu jaaxaan loo ma di ma sotti gutu 10 litres bi ak suuf si muy dugg sama gémmiñ dugg sama ay bët fees dell ci sama ay nopp man bu may ximmiliku wallaahi al azim damaa fogoon ni maa ngi dañ ma dañ ma mujjee tëmbal ci géej ba dem maa ngi nekk di lab pour man dama nekk di noyé bu ah, may ximiliku te man dama amee traumatisme boobu parce que j'ai failli me noyer deux fois moo tax bu ma ximilikoo dama foog ne dañ ma sànni sax ci géej gi buñ ma sottee ndox ba ma ximiliku ñu yëkkatiwaat ma tafaat ma ci miir bi kan moo la yónni kenn yónniwu ma ñu continuer wat di door, di door ci ay articulation sama tank yi dañ ko mujjé talal dama tok ñu ne ma tàllalal sa ay tank bama talal ko gendarme taxaw xacc ci tonfa ba ki loxom bi seuf mu door, ci tank yi lolo indi fracture bi ci tank yi dafa dóora dóora dóor ba suma banké sama ay tank ci genou yi lay dóor ñu duma ma duma yu metté metté metté dans des conditions atroces

gendarme moom wax lii teg ma pistolet ci bopp après bi ñu ma dóoree dóor a dóor dóor ci biir groupe bi ma doon dóor gis naa benn petit groupe bu doon décalé wu di sori groupe bu ma doon dóor mais bu ñuy dem kenn mu ngi laaj keneen ki ndax essance bi ñëw na bu ma déggee moo essance dama fogoon nag ci seen moto yi lañ ko war a sol wala ci seen oto yi mais ndekete essance bi beneen finalité la woon te buñ ñu jàppee ba yóbbu ñu cave ci laa dajeeg benn kenn ku ñu jàpp mu expliqué ma ne ma fu ñu la doon dóoree sama cousin fa la dëkk sama cousin moo ma wax ci noppam sama gémmiñ ci gémmiñam sama nopp mu ne leen amoon na groupe ci ñenn ñu ma doon dóor yu ñëwoon ci côté fenêtre am di laajte ndax essence bi ñëw na lan mooy jumtu lan mooy jubluwaay bi pour ñu taal ma après ñu ne man damaa bëggoon taal benn kër responsable ma mën a manœuvrer essence bi far mu jàpp ma ma lakk lii moo nekkoon seen objectif une tentative de meurtre la yàllaa ma dimbali de wallaahi ak taxawaayu sénégalais yi ak ñaan ñi nga xamante ne xëy na xamuma leen sax ak sama ay ñaanu wayjur moo tax tey ma gàddu sama bakkan ba toog di jàkkaarloog yéen di waxtaan di leen nettali tragédie yi bi nga xamante ni dund naa ko ci sama propre dëkk après dóor yi bu mu méttiwee ñu seen am benn gendarme bu seen kenn ci voisin yu nekk foofu bu taxaw ci fenêtre am ci kaw ci étage bi di filmer taal flash am flash boobu la ñu seen mu daw ñëw si mais est-ce duñu wàññi dóor yi parce que am na ko commencé filmer quoi sinon danañ ci am problème kooku noonu xaw ma ko de xaw ma kan la waaye xamal ne man Pape Abdoulaye Touré su ma toogee fii di nooy ba léegi ginnaaw yàlla ak yonent bi ak sama ay ñaari wéjur ñaan yu ñu ma doon ñaanal kookoo tax ndax bu ñu gisee caméra yi bu ñu gisee flash boobu ci lañu ñu wàññi dóor yi ba pare jël décision à partir de ce moment ne dañ may yóbbu commissariat brigade bu Foire ñu ligoté ma par derrière un citoyen sénégalais sans défense de surcroît un étudiant amul benn arme ci moom fekk ñu dara ci man à part sama téléphone ak sama portefeuille amul leneen. benn élément bu ma mën a compromettant bu ñu fekk ci man ñu monote ma par derrière non seulement monote nañ ma amatuma benn défense ñu jàpp ma di ma brutaliser di ma torturer torturer yu méttee méttee métti après ci la ñu indi seen pick bi ñu yeb ma ci ginnaaw sànni ma ci ginnaaw comme xar man maanaam tabaski su jotee da ngeen gis ay xar yu ñuy takk sànni leen ci ginnaaw 400 mbaar kon noonu lañu ñu ma def d'ailleurs am na photo bu may. buy wane kii bi sama kanam feeñu ci am na image yu ma ci gis photo boobu ci biir pick bi la noonu lañ ma sànnee ci ginnaaw waaye bu ñu ma sànnee ci ginnaaw am na en attendant ñuy régler dañ ko yóbbu fii nañ ko kii ñuy suivre ay instruction ñenn ci gendarme yi dañoo continuer di ma torturer ba ci ginnaaw pick bi am na yenn soo ay sio yoo xamante ne couvert bi pour nga tëj ko day am benn verre benn benn weñ bu muy àndal nga xam koy da koy kii waaw gis nga verre boobu xam nga day kii kii bi weñ boobu day dindeeku wallahi azim weñ boobu lañ dindi la benn gendarme dindi fekk mu ci biir oto bi mu ma koy dóor ci kanam ma dama jël sama kanam rëpp ko ci ci ci ci ci kat ci kat-kat bi ci ci kii bi pour mën a rawale sama kanam ndaxte boobu temps sama kanam man xamatuma lu muy nduról ndaxte recevoir naa benn ku de pied boo xamante ne ci sama bët bi ba fi ma bëgg fa la jaaree woon ëfu ba ba tëju moo tax à benn bët laa doon xoolee te bët bët euh, coup lu tax ma jël ko mooy ci biir torture yi dafa am benn nervi bu xàll yi ñëw ba ci man jël la ko sam génnee pompe pompe ko ci ay bët boobu fekk nañu sotti ma ndox ba pare ba pare imposé ma ne ma da ngay xool par force ñu foto la te pompe gaz baa ngi dugg sama bët amatuma usage de mes mains parce que monote nañ ma par derrière may wut fuma ma làqatu di pour bañ ñu yàq sama kanam gi ni may wut comme kaña wallahi al di wut fu ma dem pour rawale sama kanam bàyyi leen sama yaram wallahi al azim ci laa ci laa dajee ci benn tànk gendarme du sol ay ram jeez wallahi kuu la ma dugal bule coup de pied bu violent la ma ci bët moo waral sama bët bi amoon ay jafe-jafe ba ci lendemain bi lañ ko mujjee lañ ko mujjee ubbi ci oftalmolog bu nekk section de recherche bu bu Colobane nii lañ ma yégalee ci pick-up bi ci yoon bi maanaam diggante fi ñu ma jàppee liberté 6 extension ñu jël VDN bi war a dem brigade bu foire teewul du ma yaa ngi continuer ba léegi de je vous parle de deux heures moins là on m'a appréhendé vers vingt trois heures ba deux heures moins presque une heure et demie et quelque ñu nekkoon quatre gendarme ñu ma boole noonu ci gannaaw ne ma dañuy tëdd nag ñu tëddloo ma parce que dañ doon bañ xëy na romb ay manifestants et tout ça ñu mën ma xàmmee ñu attaqué leen ñu tëddaloo ma ci oto bi continuer di ma dóor dóor yu méttee metti ba mujj gi chauffeur bi doon dawal moo wàcc moo arrêté oto bi wàcc ne ki doon ki ma doon dóor ci ginnaaw arrêté dóor yi parce que euh, su deewee dinañ am problème kooku teg tonfa bi jël ay loxoom sama sikkim yi ak sama karaw bi ma amoon ci la doon jàpp di xëcc di bukti di japp di sekk di xëcc gendarme li may wax nii ay gendarme ñoo ma ko def que ça soit clair ay gendarme ñoo ma def li may wax nii ci noonu lañ ma yóbboo brigade bu foire bi ma yegsee brigade bu foire ku ko xam xam nga ni étage bi foofu ni ñuy recevoir parce que poste bi fa la nekk bu ñu ci escalier yi ma war a dugg ci poste ba fu mu ne ñu fekk fa benn gendarme bu doon ataaya ci poste bi mu jug doon joxe kaas pour dellu siwaat bu muy bu muy avant muy dellu siwaat ci yoon bi lañ daje ci couloir bi mu ne eh, kii kal la ñu ne ko kii de benn manifestant la wallaahi tànkam la yëkkati ma ñu ngi ma mën a teg ci ginnaaw mu wéq ma ko ci biir ba ma am problème euh, euh, respiration ne ma loolu ba pare ne loolu mooy participation ci mbir mi gendarme ne ma sama participation ngi noonu ndawtalam merci beaucoup ma yegg ci ci poste gendarmerie Foire ñu jël sama ay ñaari téléphone jël sama portefeuille parce que loolu rek laa yoroon di fàttali Sénégalais yi ne kagul sax yoruma ko wallaahi laa masque masque amuma ko fekk ñu dara ci man ku doon kuy manifester dina dem sans masque ak man nuñ ma xamee ci réew mi sañ naa jël risque di dem ci ay manifestation yu ñu interdire ba pare te du ma takk masque balaa ñu may xàmmee di ma rey xalaatuma ko même bu dul loolu sax ñun ay kilifa lañu ci réew mi am na yoo xamante ne jommale nañ ko suñu bopp parce que bëgguñu koo servir d'exemple ci kaw loolu ci lañ tekkee monat yi ci condition yu metti nag ndax monat bi mi ngi fekk maa ngi damm ba loolu laal ci man day metti sama yaram bi am ay góom un peu partout bopp bi di xelli sama karaw dafa yàgg sëkk dama yàgg sëkkal karaw mais ku taxaw sax gis ma di nga gis deret bi dafa mujjee coagulé ci ginnaaw ànd ak karaw gi ñu dal di may tekki dindi monote yi sànni ma ci seen cellule bi ba léegi kenn waxuma vous êtes en état d'arrestation ba léegi notifié luñ ma sama garde à vue bu ñu dugg see ci deux heures du matin et quelque ci la benn pick-up ñëw gaare yëpp ay gendarme yu jógee section de recherche bu fédère bu bu nekk Dakar fii après laa koy soog a xam sax gendarme bi bu euh, chef de poste bu mu ñëwee tijji cellule bi ak yeneen manifestant yu moo fa fekkoon dama tiit tellement que bu ñu ñëwee ma gis ma gis leen solu ñu tenu dama foogoon ne dañ may livrer nervi pour ñu terminer le travail ma wax ñi ma bokkaloon ci cellule bi ne leen man maa ngi tudd Pape Abdoulaye Touré bokk ci mouvement Sénégal notre priorité bés boo leen ma gisatul ngir yàlla génn leen ngeen témoigner ne brigade bu foire lañ ma jëlee sànq ma parce que ñii di jël si xaw ma leen te solo ñu tenu ba ci chef de poste maa ngi ko koy wax na ko ñii ñii maa duñu ay nervi maa nekkul dañoo ñëw pour rey ma mu ne ma ñu ay gendarme lañu fédère bi lañu nekk dañu lay yóbbu brigade bu fédère bi ñu monote ma sànni ma ginnaaw pick bi encore direction brigade bu fédère bi bi ma yegsee ci brigade bu fédère bi lii may wax commandant bi jiite fédère ki nga xamante ne moo jiite fédère bi mun na koo témoigner parce que daf ko fekkoon ci ay nelaw sax moom mu wàcc jóge ci kaw wàcc bu ma yegsee bu mu ma gisee lu mu ma njëkk a def massa loolu la ma njëkk a wax massa massa massa ma gis benn tristesse ci kanamam bëgguma koo exposé nag parce que jaral na leen ko de dem ba dàq ko mais ku baax ku am ku am ku nite gendarmerie du ñëpp bon de mais am na ñoo xamante ne mérité sol tenue Sénégal am na yenn métiers yoo xamante ne ça appartient au hommes de genre gendarmerie ci la bokk santé ci la bokk garde pénitentiaire ci la bokk ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni yow sax balaa nga koy def dañ la war a defal formation psychiatrique psychologique nga mën a wax ak nit ki mën ko aborder mën ko stabiliser. nii laa yegsee ci brigade bu Faidherbe bi commandant bi photo photo bopp yi photo fra euh, néew nekkoon ci loxo bi fracture yi foto góom yi ma gis condition yu ma ñëwee maa ngi tooy xet mu sedd lool sama yaram bi yëpp nekk suuf mënuma je voyais à peine quoi j'étais à moitié aveugle bu ma pas ba pare supérieur que ça soit le général Moussa Fall avec le procureur de la République Nous notifions que je suis en état d'arrestation notifié ma sama garde à vue au premier chef d'inculpation bi mu dit participation à une manifestation non autorisée point de noonu lañ ma yóbboo sans pour ñu yóbbu ma hôpital ñu saytu sama yaram sonnoon naa lool waaye wallaahi guddi googu duma ko fàtte ndaxte guddi gi ba fajar nelaw ma dama dem ba ci guddi gi dama amee fièvre di lox di kat-kat yi man comme de guddi googu laa deewul ah am naa yaakaar gudd fan de di yuuxu ci biir cellule bi ndekete gendarme yi dem nañ tëdd bu yàgg muy yuuxu pour ñu yóbbu ma hôpital ndax tellement que douleur bi ma doon sama yaram Je ne leen koy wax de mais mënoo leen mënoo ko xam ku ko le lendemain ñu jëlee ma waat ci la suñu doyen yi commencé di alerter à travers ak image yi génn may wax sénégalais yi image du man maa jël du sama mbokk moo jël man confisqué woon sama ay téléphone ba léegi sax nii photo ñom ñoo vidéo ñom ñoo génnee photo yi lan lañ ci djublu won lan mo nekkoon objectif yi ñëpp xam nañ bu ci njëkk humiliation boy bi doon wër ci plateau yi di wax boy bu ñu sonal fatt ñu tarat ci parce que ñan ñoo ñan ñoo publier ay Anita je pense bugguma leen sax may bës di tuddu sen tour mais ay influenceur gouvernement bi ñoko publier ñoo partager image yi kuñ japp japp nañ ku taal université dégg na am na yu bari yu ci dégg dina ci revenir at buñu xamé na affaire bi vidéo euh, photo yi génn na et que luñ ci xaaroon luñ ci doon xaar amuñu ko ci parce que luñ ci doon xaar mooy xukkatal sénégalais yi ba dootuñu amaat fitu génnaat ci manifestation yi pour ragal ñu def ma ñu def leen lu ñu ma def luñ ci doon xaar mooy humiliation waaye peuple bi taxaw temm looloo tax ñu jëlee ma section de recherche bu fédéral bu yóbbu ma section de recherche bu Colobane je on est le samedi le lendemain à 13h le samedi 3